ginnaaw nuyoo bi ñu sant leen gërëm leen bu baax a baax ci ànd bi ak ñun kontaan nañ ci bu baax a baax yéen ñi ni door a dab mën ngeen a dem def li nga xam ne mooy seen i abonnement yéen ñi ko def ba pare mën ngeen a rey seen bopp ci li nga xam ni mooy commentaire yi ak aimé la nga xam ne mooy vidéo yi loolu am na solo bu baax a baax euh, triste nouvelle yoo xam ni euh, tey jii ki nga xam ne mooy Xavi euh, bind na ko sànni ko ci li nga xam ne mooy page Twitter mu nekk kàddu yoo xam ni yu am solo la waaye kàddu yoo xam ne yu xaw a euh, daw yaram la ci ab dégg-dégg ndax gone gi boo xoolee bëgg gi nga xam ne bëgg na ko Barcelone ak bëgg gi nga xam ne bëgg na ko gagné loole moo ko yóbbu lii Xavi mooy wax wax Xavi ma ngay xam le ni euh, mi ngi désolé wu bu baax a baax ci supporters yi Barcelone yi waaye lii lépp maanaam ñoom seen faute la ñoom ñëpp kàddu yooyu mu nekk kàddu yu doy waat suñ faute la ñun ñëpp ndax li nu def ci suñu xel def ko ci suñuy bopp Ah, dañoo war a gañe loolee tamit ah, moo nu indil li nga xam ni ah, mooy lii ñu dikke nii te it man maa ngi nekk nit koo xam ne maanaam ku sedd laa tey jii ku triste la supporter Barcelone yi ñu ngi jéggul ba pare tamit ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax jii ma defaat yeneen yoo xam ni mooy gën a yéeme li nga xam ni moom lañ dund lii na supporter yëpp nekk ci sunu ginnaaw loolee di kaddu yoo xam ni kii nga xam ni mooy Xavi yëkkati na ko mu kàddu yoo xam ne supporters yi Barcelone ni war nañ cee bàyyi xel mu nekk kàddu yoo xam ne tamit ak sama gis-gisu bopp yu daw yaram la ndax euh, fii nga xam ne fa la toll nekk na moment yoo xam ni yu difficile la ndax benn bu fekkentee ni match bi nga xam ne moom la dëgmal kii di euh, Bayern Munich dóor na ko moom moomee ak lu man di am ci diggante Inter ak euh, équipe bi nga xam ni moom lay dajal Victoria Pulsen loole du indi dara ci li nga xam ni mooy Barcelone lu dul ak toog la koy indil Barcelone li gën ci moom mooy mu gagné ñaari match yoo xam ni euh, Barcelone gagné ñaari match yi match yooyee euh, Bayern lay doon ak Victoria Pulsen mu nekk loo xam ni lu yéeme la tey ñaan euh, ki nga xam ne mooy Inter de Milan Barcelone kii daal di koy dóor Bayern na